seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale dénkaane nit kese noonu Yeesu woo mbooloo mi ci moom ne leen déglu leen te xam du lu dugg ci gémmiñ mooy indil nit sobe waaye li ciy génne mooy indi nit sobe bi taalibeem ya déggee loolu ñu ñëw ci moom ne ko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 seede lu dëgg ak saaga yooyu ñoo indi nit sobe waaye lekk ak loxo yoo raxasul du tax nit am sobe ginnaaw loolu Yeesu jóge fa dem ci diiwaanu Tiir ak Sidon ba mu fa àggee nag jigéenu waa Kanaan ja dëkk ca wàll yooyu daldi génn di wax ca kaw ne ko yow sang bi sëtu Daawude bi